لو شكري بلا قهوري وهو نسيري منه فدائي لو اختربي بلا اخترابي لو خدابي مع جدائي لك رضائي لك ثنائي
ay alquran waaw jërëjëf soxna si ci laaj ba am solo boobu comme ni ñu ko dundee suñ biir wax rek école bi ñu ngi ko créé ci année scolaire 2009 2010 mu nekk continuité ci daara alxuraan karim ndax sart yi comme ni nga ko laajee mooy gone gu fii ñëw faaw nga jaar ci daara alxuraan karim kon dong daara rek moo ko tax a jóg kon continuité la ci daara alxuraan karim li taxoon ñu sos ko ci biir njàngale ak yar mooy dañoo gisoon ni daara yi gone ci daan génne dañaa am jafe-jafe pour continuer seen njàng parce que bu ñu ko génnee fekk ñu xaw a âgé tuuti dañu am ay 12 ans jëm kaw minimum su ko defee dañaa séddale ko ñaar ñii dañaa dem daal majalis mi di jàngi wala ñuy dem ci école yi école tamit soit mu nekk école franco arabe wala ñu dem ci école français kese wala arabe kese loolu lépp nekkoon jafe-jafe ci ñoom ndax école yooyu dañ dañoo waajalul donga bi ñoom seen programme waaye dana maanaam taxaw boppam taxaw ak njaboot nekk daal bu njëkk ma bu ñu ëllëgee daal mën a nekk daal citoyen boo xam ne dana mën a servir réewam ca kemtulaay na ko kàttanam may kon di mooy sart école bi maanaam école bi moom ñi nga xam ne dañoo jàng alquran ba noppi ñoom ñoo tax ngeen def li nga xam ne moo di école bi kan moo tabax école bi suñu faalu ak
macha allah jërëjëf soxna si laaj bu am solo junj naa ko ci biir wax mooy ay dongay daara ñoo ko taxaw ñoo ko ñoo ko taxawal ñoo xam ne parcours bi lañ jaar bëgg musal xale yi ci jafe-jafe bi ñu jaar ñoom suñ suñ bopp wala ko suñ bopp def ñu ngir yàlla rek xam naa kon ñu may diglu ñu mën a diglu dama ci rànk damay fuglu nga xam ne kat ab taarix laay nekk bi xam naa xam naa kon ñaari xaaj li doon benn benn xaaj bi moom mooy école wu ñu tuddee Fatou mën naa nekkoon ca laaya ba la jëkk a nekk ginnaaw ba ñu indi ko ci fii ci daal xudóos foofu ñuy jaay essence bi foofu station boobu boobu la jàkkaarloo mbedd moom mooy jëm ci mais ñu kër kër xarit ndi foofa nekk mbedd moom bu jóg foofa la ñu ne boo duggee ci mbedd bi rek nga xam ne ñaari lii wala ñett xam naa sa lay joor foofu la boo jógee ci station bi taarix boobu balaa yi nekk fi doon taarix bi biñ ko dañ ko jëkkee sos ca jumaa ja ca ca ñiiru kër kër Sëñ Tuubaa ji lañ toog ci guddi waaw ginnaaw ginnaaw ginnaaw tuuti ndax xuma ginnaaw gi jiite boobu xam naa jur suñu fa lu jaayee ma taw booba wax na gan booba Abdul Xaadir Buusu ibn Abdul Xaadir Mbacke Abdoulaye Mbacke ñu rakk sëñ Fallu jumaa daal Fallu Silla soxna ci mbule Moussa Ba Jóob Ndar booba ñun la woon ñu woo ma suñu ko jaay yàgg na danoo tareex ba tareex ba gën a ñëw moom ci ci ca woo ne ma daal ma fi jóg keroog sax suñu liggéey bi sax digg naa mu ne kat da ngeen kat naa ngeen ay donga daara ngeen danañ ci boole koo xam ne koo xam ne xam-xam màcc na ci école bi keroog démb laa ko dégg ñu ñu nekk ci moom ñu ñu métti parce que bu baax a baax bu tedd law ko ñu ne ñu kat ay dongay daar lañ ya jaal tey xam nañ ne gone yi nga xam ne dañoo ñoo ñu ko alxuraan jàng xam-xam ñu bëggee jaar ci cycle normal bi dana yeex ci ñoom at mu njëkk a tàmbalee ci kulaaya ba ñaari at la lañ def am certificat ñaari at ku ku mel ne docteur Niass dina ñëw ci taarix ko kër Maam Jaara bi daal ne kat loolu day baax na waaye nag gàtt na mën nañ mën nañ ko yokk ndax xale bi du tafe xam ne promotion bi ñu dikk am ñaari at nga xam ne programme bi bu bu bu su tiiree la lay doon programme xamante ne franco arabe la bu amoon solo nga ne boobu ni su su yàlla dee dama dañ kenn ku nekk juróom-ñaari junni yaakaar naa wala juróom moom ngay joxe ngir ñu mën caa fay jàngale lekat ba élèves yu bëri ñu te te te yàlla ñoom dañ ne daal dañ ciy liggéeyal suñu Bamba sa baay nag la waxoon ne président moom kenn ku nekk yàgg sa borom la kenn ku nekk la nga façon kooku moom yàgg sa sa borom waaye ñun daal lañ annoncé woon ci kaw ñëpp bokk ko moom mooy liggéeyee seen bàll ci dëkk bi lu am solo daan dana am wax joo xam ne dana ñëwaat ci kanam di gën a am yaa ciy dox ba bañ doxee tuuti ca waaye ñan na ku mel ne Moustapha Diop Ndar di nga jëf gisatuñ ko waaw mu mu jeex ñu dégg kaat ñu ne programme boobu def na ko ci dara bari yaakaar naa mu ngi dox jox na cumb leen daal na moom mën nay joxe mën nay joxe xaalis bi dégante woon boobu de day am ay bis yoo xam ne ñu amuñu ab directeur seen bi dañ ko si séddale ñu ko ñu koy doxal ko di ko mën a saytu nit yi mu ne moom mën naa joxe gars yi ab ndaje ñu ne ko soxna de mën naa joxe nee na waaye ñun tëdd yow may leen di liggéey bi loolu xen ma la kon day baax na man naa xool école de dégg dégg naa mu ne moom moo waxam na ba day baax na kon noonu la ñu dox tuuti mel ne li liñ dig am na waaw kon am na ko bëgg a jàngale ci kii ba te moom affaire seen daara la man mii booba la man man dénk dénk dénk njàngale ma ma ma ko saytu ñu woon rajo ma ma ma ma ko déglu am na ko bëgg ñu sax lay tax genre yu bëgg ixtijaaj di wax ay doléance am ñu wax ne ma diw la li ñuy waxtaan ma naa ko génne daal ni kii kii bind lii de moom xamul dara dama ci jublu booy moom moom mooy wàcc station bi ma xam ne kon li muy bëgg a wax moom kon mënut a nekk. ginnaaw moom dundam mi baaxut may leen nëkk man du dama nekk ci école bi ma nag ku dégg ne mu soju ak kii mi ngi ci mu am ci yaakaar ndekete école ba ñu ko yor ñoom tamit loolu du ma nekk gars yi daal di kii ba sax yàlla di for ne daal ñu fi yéen na tas bo booba école bi amagut xaw ma autorisation lay xaw ma maa daal économique bi booba booba xutumanaa ji sax booba daanaka dañ ko tuddee noonu rek waaw soo ko xaajee mbàkk moom daal di dem su ma sosu ak école am te lu ca ngiraaneen daal di yaa di séddoo bagage yi am na ko ci jox ñaar ko jëmee nee na ñu ko joxoon dem yaa di séddoo nañ bagage yi sëñ Fall Dieye rek daal ñu xet si boppam ne ma nañu ànd daal di ànd ak moom xam naa foofu foofu entre parenthèse maanaam léegi li ma yàlla bindee damay xam ba nattu mel ne xaw ma dara maanaam li ma yàlla di xamal ci nit wax naa ko ba tey li ma yàlla di xamal ci nit rus naa mu xam ne xam naa ko rus naa waa ji xam ne xam naa ko su su su su gànkee nag xam-xam yu yu yooyu sama bàyyi daal wax ak waxaat su ko jox baxa ba mu géntee gis ay malaaka yu soppi ko ay ñanaaw dem ci seen sàkk seen bi di di móolu ñu soldal ci ci kër gi waaye di xëy tamit jër sama bàyyi nee na waaye di ñëw fekk sëñ baa ngi waxtaan ak borom ma waaye di nuyoo salaamaaleykum waaleykum salaam ñu ko Ahmadou Diaw defal ni sa borom xam ba ca ku bëgg ànd nit ñi waaw nag nga xam ba ca de waaw bu la yàlla may xam-xam bari boo ko boo soo ko jëfee Ibnu Taymiyya rahimahullah daanaka wax ñu koy nee na li may xam ci yéen su su ma ko doon wax du du ma nekk man ay bés waaw loolu moo tax si waa ne hadis bi rek ina sudur ak xubóoru xubóoru xubóoru sudur abraar xubóoru asaar ñoom la ñuy xam ni ni bàmmeel di bañ a nettalee ñoom noonu la ñuy wax kon ñu ànd daal na tax ci boobu ñu ànd dox ca daara ja sa sama tur wi si bari gaay moom ci daara ne woon minu ko ci école man nag man nag moom def naa ci expérience bu yaatu kap xam naa ko lii may jàng ndax 85 kon ba booba rek wala ba tey rek maa ngi ci xam-xamu école bi ñuy dugal wax njàngaleem islam yi ci école publique yi ma maa ngi ci woon. invitation bi nga xam ne maa fa dem ba ñu ci lijji ba waaje docteur Thierno Ka bindal ma maanaam ab ndax wax ësti ñu ñu ma ci man na ca di xeex di xeexal di xeexal xeet yi lu am solo nga fa foofu ca ca dox baax sama soxna dafa wéré bi jadd jaddaaw boobu moo ko dal mu ngi sib mën na jox Ndakaaru faam dante di ko dem dante nañu ma ma ibaa nañ ko fa ca waaye dañuy jàppaat ñu ngi jël gërëm gis nag maa ngi romb nii ci maa ngi maa ngi xaw ma lan huit vingt deux xaw ma daanaka ne fa ni di génn jënd samay kuréel yooyu ngir ngir ngir dem ca hôpital ba forte section ku ku ku ma xamante woon ca Pierre ñu yor ni ay documents nag ah koo xam ne ma kat maa ngi jëm campagne li ko ab ab ndaje moo xam ne gouvernement bi dafa bëgg a dugal ne ndàngal la ci ci école yi ma ne kon bisimilah ma ne ñëpp ko man sama soxla daal di fay ànd ak mu dem yenn fa ba ba ngoon daal di indi daal di daal di ñëw so gars yi tànn géeru ci man so soxna si ndeyam ma ne ko ku ñuy wax Cheikh Amar Diop rahimahullah inspecteur mun taxaa jotara booba booba da ngeen a xam ñoom ñoom ah wax nga ko yow yow de da ngaa kii takay daw responsabilité sa soxna yuri di ba noppi nga nga ne fii may leen sama soxna kenn la na dee du yàq dara man umma bi lay xeex lu xorom la xam nga xam pas-pas boobu nag nga ne man noonu lay doxee waaw ñoom it ñu ne ko mecc parce que boobu pas la bu metti bu bu xorom tudd li may tudd tur yi am na am na solo ndax taarix taarix la taarix daal di nekk ca noona booba kenn ku nekk indi say bagages yi nga am bagages yi yi nga am ñu andi ko moo ko doon joxe kon ñooy daje indi taabal bi bi nekkoon ci xaw ma benn benn benn ma makkaan bu ñu doon defee xaw ma ñu lan waaw ay ay ay liggéey xanaa liggéey ba mu jóg ci ñu jël ko indi ñu daal di nekk fay noona yaa di fay jël coono ci mu leen daal woo xam ne ne ah man kat sama rek Abdou Khadir bi nangam bëgg naa jàngal loolu donte ne moom ab suñu daara la indi ko donte ne dox nañ ba kii mën a ama ama sàmb mudir bi ñëw fa indi fa doomam doom ne dinaa wax laaj ma ne ma ah ka ka fekk nag daal di ree noonu noonu noonu bool bool bool yi def nga xam ne julu ma ne ko ah kooku kooku nag moom jàngul jàngul arab de waaye nag nuñ kooku lañu am ndax mënuñoo fay suñ toll nii ab directeur boo xam ne waa ñu ci dugg mën ko mu daal jeex rek mu jeex dem nañ ba mu jum lañ see xatar boobu moom mooy directeur u gisee fële sel saram ba seen ba indi woon na fa sax doomam jëlaat ko xam naa boo daa xam ko jëf ñu dem for ay suñuy gone promotion bu dëkk bi daal fay dem ñoom ne ci kanam français ñu jàng français képp ñoom raw bu baax lool lañ si la indi fa doom daal daal di dox daal daal di dox ca noonu lépp nag pas pas la maanaam nga xam ne ni ni may doxee ak nit muy doxin bu métti da man suufiyanke yi ñoom ma yar du ma xëccoo mbir mi jëmi ci sama bopp ndax kon day mel ne kon loolu bakkat la lu métti métti dama koy nangoo bàyyi ka ca des ginnaaw moom nangu na ko adduna adduna daal moom la fas yéene di def xëccoo yàlla mu seen boo musal ñu di xëccoo nekk ca noonu man ma ma ma bëgg lépp dox nañu am ordinateur am kii nangam tëkk lu école bi lu ci ne mooy bind moom mooy bind nangam nangam xaalis bi dugg mooy bind génn nangam ba dëkk dëkk nag ne ne ko yow kat maa la gën a xam maa la gën a xam école kon dañu wut objectif ndax ndax moom daa yaakaar ne moom daa bëgg léegi nag gisu bu amee ñaari fan kenn ñëw fi nga loolu moom te nekk moom école du noonu école day am objectif misaal waaw xam naa ko moom xamu ko ba nangu ku ñu wax maam Serigne Ndiaye mu ne mu ne ma nekk mën a baaw boobu man suñu man man suñu man de xaw ma ne te te te suñu Fallou Ndiaye moo la xam waaye nag ma maa ngi lay ñaan bul bul wor de baat bi ma ko wax xa xam naa lu bari lu lu tax baat bi juddu ci man ma wax ko bari laa xam waaw li ma yàlla xamante ni tax ma wax loolu sikkim ab sikkim bu gudd ak nangam ak kurus ak kaaral dara moom warkat ba dëgg loolu lay sol. waaw loolu sol makkatul mukarrama naafiq amu fa yéefar rek a fa am ak mu'min waaw madina la la la naafiq am bi jur ñu ne doon doon fenn ñoom doon benn groupe naafiq foofu la juddoo waaw waaye yéefar ak ak jurit moom naa naafiq am kenn kenn ku ne jàng ci li nga gëm waaw bu ñu nee àndee nag waaw man tiyaan la xaajir laaj kooku nag daal tam naafiq nag yooyu amu di daal di nekk ca noonu nga xam ne nga xamante ne wax naa ko démb dem naa ba dama ñëw sax ci bureau bi sax def sama fi fekk ñu tëju ma ma fëgg ñu ne kat dañu réunion kenn du ma ko wax ko bis def naa ko tànk jër na ah yéen kat daa mel ne kat école baa ngi bëgg a aw ci sama tànk yi booba booba booba waaye du du du ma wax a jóg te it ki ma seqal it xam na ma xam na ne du xëccum waaw moom xam na ma xam na ma dana ñëw suñu taarix mag ma kon man du ma ko laaj dara day bind mag laa nag it nag xam nga mag sëñ bi nag bu dee da ngay bind ci ordinateur ne ko fii de nangam fi nekk bu demee ba kii nga ci nga far ba fii nii nangam fii de xaaj bi lii daa mel ne kii tax dara ñu ko tëj léegi mooy la est-ce que xam nga xam nga mag mag la nag mag la bëgg mag la bu dee waaw xam nga ne mag la bu dee nit nga laa wax sama bàyyi dana ma woon soo bëggee noppalu soo wax nit da nga koy jàpp ni nit noppalu xam na di xam na moom xam na fa dakir ak dikraa nee ñu mooy liñ lay waxal xamoon nga ko wax da nga ko fàtte loolu loolu ak dikraa fa dakir fàtte lii leen li ñu xamoon waaw waaw waaye du du du lu yes de du lu yes ñu def loola maanaam ba daal noonu daal maa ngi moom ñoo bokk école ba sonn naa ci lool wóor ku ne ndax man lañu xam moom ku ñuy dem man lañuy xam te maa xam it nag booba école ak ak di ko bisuma sa ne ma wax ne ma affaire yi ma waaw man dama ñëw fii ndax moom yor na tey maam ji kër kër maam jaara yi moo ko yor maanaam moom ci lay dugg duggee man may dugg ci kaar yi ak nag li dem nag école toogal kon kon kon nag mënuma nag di sonn nag saam jaxate foofu ma dëkk dafa sori lool école gis nag ma ma ma lim ci sonn nangam ma ne ko ah waaye man sama expérience nag laa indi xam nga nit moom bu la xamu dina danga naa ko dul baram nag ah sëñ bi man li ma indi ak ak a seer waaw expérience la indi xam-xamu école pédagogie xam-xam boobu la indi waaw loolu it moom wut wut xamut ci ci nga ci xamal ko rek baax na waaw léegi nag ci tënk loolu nag mu daal di nag léegi nag ba ci màggal gi bi ñu bëgg a màggal mu mu woo ma nag ne ma dafa bëgg ñu séparé wu noonu wax bant noonu la ko làkkee seet daa bëgg ñu séparé man daa man day du du ma fekk ci coloré ma da sala ñoom daal daal kii ma ne ko ah yàlla day may na ma xéwal yu yu bari te kon doo ci bokk te yow day nee nga nee nga woon ma ci ci ca yow xam li bëgg ma ne ma dem ba nettali wax na ko moom sax saxal ko ne ma day suma faatoo yaa may jullee mu ne ko addiyee xanaa kay mu ne ma mu ne dama koy dénkaane dama koy jullee démb nag moom nee na moom it dénkaan ne ne woon na ne su faatoo ba kontam banque am ba nekk ca CBAO man la na nañ ma ko jox waaye man xaw ma lu ko xaw ma lu lu mu doon loolu moom bu ñu ko joxee da da da koy delloo alwara saxaari wala. ah loolu loolu xaw ma ko woon waaye yaakaar naa bu dee def na ko it waxuma ko woon xam naa bu bu dee def na ko it kooku moom mu ta nekk waaw alali alali ndonol li kooku mu ni su ko maye moom ko ba koy maye ko fas faatu na faatu nga xanaa kay boo boo soo ko maye woon ci ci sa dund fekk na nga na ko waaw te te boobaa na fekk nga wér ànd ak sam xel di ko di ko di ko fekk jàngale rek moom loolu kon wax na dëgg ndax it su may wax nag damay wax nag xam nga boo wax dëgg da ngay wax ne ni nga gis ne noonu la doxee jënd fenk na fenk na rek moom sa bàyyi bëgg na bëggut am njaayeen bu bu bu xam ne ndakaramat dëgg dëgg te yaa ngi fenk na kon kon loolu loolu wax na ko waxtaan daal waxtaan mu ne ma dama xamul woowu la xaw ma bi ci topp ci magal gi comme ma waxee daal ne ma léegi nag école bi moom aw turam ci ne wax na dëgg keroog keroog bi ñuy am autorisation xaw ma loolu du sàngam njaay ndax xam naa moom bu xamee bi bëri moo tax jël tudd aw turam dañ doon dimbale ca pédagogie dañ ko jëloon muy formé mu ñuy saytul ñàng la ñàng ma yooyu mu ne ant nañ ci bind sëñ Moussa Diop kokki nan la ko tuddee sëñ Fall Ndiaye ne ko déet nañ ci bind sëñ Sow mu ne ko baax na te booba yëg naa kat booba kat yàlla toqal na ci man nee ma kat su ko defee dara yow waaye ah sëñ bii ab sugan ki la bëgg a doon di moo tax kon faaw ma nangu ah su ma ne ko déet ma bindu bindu ma ci déedéet bu bu doon sax nag sëñ boobee dana woon ah déet te ngeen ko dee def ab séyee ab nangam yi ngaan yëpp moom nag xam naa wut la may it may it aw ma xel mooma ndax adduna mën a xamu ca ma daal ne waaw mbokk bi mu def mu ne maa ko moom sama tur ci nekk waaw ma waaw mu ne mu ne ma sama tur ci nekk kon maa moom mais quoi nga nga tax ma ko may wax nii ci ñi ñëpp di ko di ko dégg mooy wax naa ko démb ba magam ne wax ne na daa bëgg ngeen wéet ma wax maa nga ma ne ko déedéet damaa wéet ak moom lu yàgg ay yooni yoon lor ji ëpp ci man moo tax léegi li may wax di da da am seede confiance bi dafa ëpp waaw dafa ëpp confiance bi ëpp na lool nga xam ne man lor na ma waaw ñi nekk ci école bi ñett ñi ko seere waxtu wane ñi nga naan ma xaalis bi bi école bi génne mën naa tabax école moom mën naa ma école xaalis ñëw bi kenn ci ñoom du du ma tudd turam bis nee na ma de ah xaalis lañ tuddee ma ba mu ne ma xaalis xaalis lañ tuddee ma xaalis lañ tuddee nga mën naa école mu mu ne ma kii la effectif yi xool ko xaalis bu ne xoolal la ñaata fa ne lu ñu kii te moom moom moom bokk na ci ci nga xam ne ñooy dajale fay élèves yi ma ma tàmbali jël kii daftarul xaw ma lan mën naa daal yooyu di ko xool.
si jëlul mën naa daal.
ah si jëlul mën naa daal.
ngoog si jili bi registre bi kii nekk di ko xool ndekete ndekete ah bawal ak a ak a xorom kooku daal dem wax kooka ne ko day Moustapha ngi xool élève yi indi xëy moom ko ndiwoon ëllëg sax ñëw ne ah yow du ko ta tàng nga lem ah yow xanaa da nga ma wóolul yaa ngi xool xaw ma xaw ma élèves yi ñaata rek diw nee na moo ko wax mu ne ko mu ne ko taxawal diw waxu waxul lépp de da dalaa wax wax ma ah waxul lépp de mu ne teg ma nangu ko léegi nag ci ci ci màggal gi xaw ma ay bis googu mu woo ma ne ma daal léegi kon école bi maa ko moom ah maa moom kon kay da da koo bëgg a jënd mu ne ko waaw xam naa ko mu ne ko ah xam naa ko xam loolu da ko bëgg a jël kay waaye du mun nga tudd ma nambaat bi kon daal maam Serigne Ndiaye xam naa xam naa ma koy jégalu ndax taa taarix la da nga ko war a wax rek ñu mu demee waaw acteurs yëpp da da nga leen di tudd ñi nga xam ne mu mënu leen a ñàkk a tudd mu ne waaw. ba ba ñuy génn mu mu mu mu xool ay bang ak ma maanaam ak xaw ma lan maanaam lii de moom moo fi ne xanaa kon ñu ñu séddoo ko te nee na ma yónni na ma démb nee na ma yónni na ma ci kii bi sama whatsapp gisoon naa ko lu bari ay bagage ay xaalis daal xam naa bagage yi ma ne daal xëy ma ne ko mu mel ne lu bari la te man keroog li ma wax moom ab ab ab ab kii la siège boobu magal ku def nag naa kon moom man la ma yónnee xo- ci xooluma ko ndax ndax ni ma baaxoo woon ak moom lu bi doon man man man man man ci xaw ma dara de xaalis bi xaw ma dara dama lay wóolu rek mbaa wóoluwuma la man man la xam waaye nag sooy def xam naa xam naa seen bi philosophie laa def ba noppi jàng tasawuf dund ko ci xel mi kii mu kii mu tàllam ni may xalaate gën a ñu xamoon moytu moom la ilaha illallah xam naa bu baax a baax li ngay làq laa gën a xam ci li li li mu war waaye moom xam naa moom it xam na ko waaye nag li li keroog it moo xamal lu am solo ne ma nag bittu la wax dëgg de ma ne ko waaw bé béttu béttu ma kay man ii béttu at mi ñu àndee laa xam ne dara ma war nee na ma ñàkk ak jombe ne ànd nañ ko at mu jëkk ma laa xam ne dara ma war te teew ñu ànd su fekkee ngoog su fekkee ngoog nag te te te sa bopp nag daay métti da ngay xam ba noppi matière waaw loolu loolu loolu mu wax loolu nga xam ne dama xut booba la wala bu jëkk ba am naa kat cardiaque am naa ko dem naa nga xam ne nga ne nga xam ne waxatu clinique boobu di di si safar am naa fa ñetti fan ndax dama jóge kaw daal jëf ci daal ku ñuy tuddi doomi soxna daal naka ngay defee nii war naa ko jëm ba magam ne ko nag maanaam ni ma méttee ba ñu def waxtaan mu naa ma de añ na ko déet su su su ma añee kon li ma doon wax du dëgg bi ni ma méttee damaa métti ba ma am kar jàpp kooku moom kooku moom ëpp na waxoon naa ko ne ko ren nañu wut suñ boobu njaay du du ba tudd ne kon nañ ko jox école bi ndax kër xaw ma lan bàjjan may noonu mu dox doxee inspecteur boobee moo ko yoral nangam ne woon naa ko it xaalis bi daaw daaw jéeg xaalis bi dañ ko kii nañ ko génne ci ci sa loxo su ci ci naa ci suñu loxo laa laa ko laa ko waxee ndax ma man cee xam dara mu ne dina xaa wóolu ma ma ne ko ma ne ko wóolu naa la waaye li li ma nit ñiy wax ma man koo xool doo ko yor soo ko yoree man du ma ko mën a na na na xool colère gi ñu fekk suñu tuma ko xool man dama sëñ bi dama ko sëñ waaye nag maa maa ngi digg nit laa maa ngi dégg di maa ngi xool classe yi ñu toll xam naa ko maa maa ngi xool xool maanaam ci ci war ngaa mën a xalaat ne kat nangam dana génn bu ñu la nee nangam ñëwu fi danga ah léeg-léeg ñu ñu yón ñu ñu yóbbu ca banque ba nangam ñu dem ca banque ba fekk ñu génn ca loxo boo xam ne demul ci école bi ñu xam loolu léegi mujj ca loolu ginnaaw ñu ngi yëg ne ni nga may wax léegi mu ne ma léegi compte gi léegi ñu ubbi nañ compte compte gi léegi su su ñaari signature yi mu ne ko baax na léegi léegi benn yoon la ñëw kër ga ci loolu daal ñëw daal ne ma léegi dama bëgg nga signal may yu bari këyit yu bari ndax léegi ñëw bu fii day métti ma nanga naam loolu benn yoon mu nee na dafa la ñëw déedéet benn yoon la fa ñëw ñëw loolu yaakaar naa andi lu andi ko fa dafa jar xam na jot naa ko wala mu ko andi ma naam ma signé ko ku jàng philosophie nangoo signé chèque boo xamante ne amul dara kooku da xanaa wóolu na xanaa sama xel ma ma ne kii moom ko ko ko ko ne ko ne ko chèque bi lu ma jëriñ moom signal la yu bëree bëree bëri waaye bal démb nee na ñaari ñett déedéet loolu ñaari ñett la ca compte lépp man man nga ko bind ci ci ci benn set man nangu man lu wax ne nangu na donc couleur gi la la Thomas Sankara benn tubaab nee na ab question bi dana ko woon est-ce que Mbaware day dana la kurita mu ne ko mu mu mu ne ko mënuma ci dara sama xarita yow soo dëggalee keneen ka dëggalul kooku kooku kooku kooku problème la yow yow da nga dëggal li doo ne doo ne nit ñi dafa bon nañ dafay bon moo di wax na ki xamul di mu xamul lu am solo jublu ba naan démb ca jotaay ba mag ñi yàq nañ ma mag ñi dafa yàq li woon li li woon sañ si dama noo gën la la la la ma wax foofa nga waxaat ndax ma ne ah waaye su su ma su ma niroo nit ñi kon jamono alko moom mu ne kon boo niroo nit ñi li li li li la yàlla jox kon du la ko jox ah day wett gi da ngay day wett gi ah day day wett noonu la dafa xamante ne kon léegi mu ne ma la léegi du ko tuno léegi ñu ngi dee ci banque ba ni mu ne ma léegi banque na léegi compte gi sax pour léegi dañ ci def suñu ñaari signature yëpp rek waaw suñu signature yëpp xam ne léegi ko fekk ko ne am nga accès ci ci compte bi man ko bismillah xam naa loolu amul loolu loolu dara di moom képp ci am accès moom man du ma ci am accès man man du ma ci génn dara confiance bi rii na ci ku nit nit laa wax nit nit nit loolu rii na de xam naa ne kilifaam yooyu ko kii xam naa ne ñoo wuteeg sama baay waaye loolu rëy na ndax sa moroomam doomi soxna la wala sa moroom daal jullit ngeen mu jox la confesse bu rëy bii bépp bépp bépp bépp nga jàppee ko ne moom du du nit am ko dem daal waaye lii do doxee noonu ñu xam ne ko ko kon daal. ba démb dem nañ fa ban waxtaan nañ ñu ne dañoo bëgg a wéet ma leen déedéet man kay doon wax ci kii bi laa koy wax ndax wéet nag moom ba tey waaye nag loolu loolu ci dafa ëpp ci ci man moo tax xam naa moom mbokk yi mel ne ñoom kenn waxut lu jëm ci dara moom waaw am na ci mag ja wax na dara moo wax dara xaw li dara dane léegi ah si fal jaay ne lépp moom bind na ko xaalis bi lépp bind na ko daa ko jox deux cent mille par weer nangam kii waaye nag xaalis bi comme ci pàkk yi ñu waxoon ne juróom benn pàkk yoo xam ne newoon na ma daaw ci lay jeex année scolaire bi ci ci leen koy fay ba mu jeex nee na tey moom ñaari pàkk lañ ci fay nee na waaw laajoon naa ko mu ne xamu ci dara démb nee na ñaari pàkk la waaw ma mag ji nee na nañ ko nañ xool kon kii ndax chiffre chiffre du soppiku bat bat bi la mokkal chiffre du soppiku dafa am benn xale bu moom sa wax kaw la école suñu suurlaa bi ne ma ne ma oustaz kii bi internet bi nee nañu ci ci weer fay na ma ne ko internet xanaa du ko ci dugal yow ab ordinateur la nga ci dugal doo doo nga fay fekk de soo ko dindee fekk naa ko bi muy dindi di soppi loolu dara di moom dara di dan ab comptable lañu koy dénk comptable bi def rapport am jox noo ñu ñu vérifié ginnaaw ba loolu yow mën na de loolu xanaa nag wala yàlla nag nag ku jàng falsafa nag weesu na foofu xanaa Abdou Samane bii de xanaa xanaa ko xanaa dana xam ne mas yow nag xanaa ne waxu man Abdou Samane bii de war naa xam loolu waaw loolu loolu kon kon kon kon ñoom nee na kon moom démb ak ak kero suñ suñ ndaje ma la ma leen wax rek lay tëjee mooy sama àq day lay laaj kër maam Diarra moom génn na ma ci démb tudd naa ko sax mu daal di kii mu daal di ne léeg-léeg yow ndax kii mag soxna Lo Ilimane Niang docteur nangam nangam ñoo ko bokk kon léegi moom duñ ci waxtu kii ma ne ko nag yilifoo ma waaye xam naa ne du ma ci sori waaye danaa danaa ci dikk nag parti boo xam ne dañ koy ber spécial ma ne leen man daal sama àq lay laaj mayu ma saraxewu ma waaye nag mën na maa xaar bis pinc mu jeex man xëccu ma de waaye nag maanaam nag ko kokki gi gi ma dëkk bi ma ko code faal ba mu bëggee bi ma code faal la ba mu bëggee jël si la joor la joor doon fa am njulli ñu bëgg koo jël si ñu ne ko nañu may bu ba mu ba mu génn gaa yi gaa yi bañ sañ sañ kokki ne ne ne ma code boo dee bu bu soo waree luy na fekk nu fi soo waree du fekk nu fi la joor du ko jox kon dañ koo dàq na waaw ndaa ma kokki ñoo àndandoo dàq ko waaw ma fend mbuub laa tey góor gi ma fend mbuub sama bi genn bàyyi bi ñoo suñ ceerno ci ma si ko laaj ne ko mam pend yéen mam pend ba ngeen ñëwee kokki ci ci wata bor ba ngeen reer wala ca mbuum ma mu ne ko ca ca mbuum ma mbuum ma mooy ngeen gañe loolu kon am nañ kokki lañ wax dëgg yàlla waaw xam naa sax mën naa mu rëgg sax mu mu mënu suuf waaye du am kokki bu bu alluwa yi wéeree pétale yi day wéeree waaw loolu xanaa nag mu rëggee ñu suub ne waaw waaye nag cib xatal lay o man asana mi nee laay cib kon moom man daal kon moom sànq rek si waxtaan bi bu ñu doon def tudd naa ko fi sëñ Fallou Ndiaye lu mu waxoon ca kër moom jaare ga ne lu ma ko ca waxoon waxoon lu ma wax doon lu am solo aw jiw lu ma xam ci moom ci aw jiw dama koy wax nag ah déedéet man man du ma fakk jël kon kon école baa ngoog suñu Fallou Ndiaye daa wax naa jël na ko ak yi moo na ko yàlla yàlla na sedd ci ay loxo waaw waaye man ma yëw ma së sërxiwuma mën na maa xaar bis bi soxna ko temps